li xorrin ñeel as gor nga xam ne moom moom boppam xayri xaajin xayri xaajin ko xam ne du mu aji aj armalul dañ ko di aji aj ana luñ sunnaal ci moom daxiyatu tabaski xam ne sunna la suñu fedd li suñu tabaski xam ne kon boo amoon nga am xar rek nga war a ngénte suba tabaski jiitam ak si te doo mën a am leneen da koy tabaskee am di sunna suñu fedd la bee sunna rek la dari mu ak mu ne laata xifu te du mu tiis ci moom nekkul koo xam ne daal dafa nekk ci jafe-jafe ni amul xaalis ba nga xam ne su jëndee xar rey ko daal dana gàddu ay bor wala dana metti ci moom nga xam ne daal moom li mu ko waroon a jënde amu ko wala am na ko waaye mbir yoo xam ne mun la ñàkk ci la ko waroon a def ko defee kooku sunnaa la tuñu ci moom mu rey xar mu ni nag wa in yatti man doonte dafa nekkoon yett yi itam koo xam ne xeeru xaaj bi koo xam ne dama aji aji duñu ñaan waaw bu fekkente ne ki nga xam ne dafa waaw dafay aji dafa nekk ci aj musulman lay sëtti ko dégg nga ndax moom julli ayit gi du sunna sax ci moom dafa am déet ku deful kii rek da nga war a rey da nga war a rey deret daf lay war ba kenn da ngay def tiraat wala tamit ñetti xeeti na ak yow benn boobu rek nga ci dul war a rey waaye ñaari ci gis ñëpp xeet ñaari xeeti aj yëpp boo ci aju war nga rey xar loolu nag moo tax tabaski bi moom mun nga ko bañ def dégg nga mu ne bi jësa bi jësa ñun ci xar boo xam ne mat na jëga mooy matal na at xar mu matul te ñu ngi koy seeti ci ndax foq na wala foq xam nga bu matee at rek lu mu tegal dal di foq charte yi nga xam ne moo nekk ci xar bu ñu war a tabaskee ndax xar mu bëgg nañ mu am daraja bu mënee weex moo gën na am béjjën yu rëy moo ci gën na rafet moo ci gën ñooñu bu keroogee moom la nit kii war ñu ne jëm ci pong ba bërëbu pong ba ñu ne ci siraat wa sanihin wal wa sanihi maazin maazin wal saxalu bay
wa sanihin wal wa sanihi maazin maazin wal saxalu bay sanihi mooy ak sax ñaareel ñaareel ak bay bu amul xar nga rey bay nga borom saal ñu ko xeleewal xar bu góor suñ moo gën sàppaan xam nga moo gën ko dëkk sàppaan nga xar moo gën bay bu góor bu góor bi moo gën nag nag moo gën gëloon waaye loolu yëpp comme waaye ñu koy dundal mën na soo yéene am waaye laa mu ngi naaj ci def maanaam njëriñ li bay war a tabaski ren mu lekk mu jébbaaxu ci xar bu dee woon nag mu lot te mu ko war a tabaski rosalie wala dafa ràgg dafa ràgg trop ñu wax ni que risaale nag su fekkee ne dafay toog wàll bu manqué ci moom mu ne kooku itam mu di jéem gi dafa dagg wala nopp di dem wala beneen cër bi mu mën a doon rek benn tànk dañ ñu def ko rek xëyri xis muy boo xam ne du mu tàppaang du mu luñu tàpp mooy dañu dindi yooyu yooyu dañu dindi yooyu wax comme ak aji tëx xam ne duñ dégg te loolu ko xam ne jib dem koo xam ne dafa tëx wasi umin ak boo xam ne yaayam wax ci yetum nga àll comme kéwal wala yooyu wala samca samca dafa naa sama ñu mbind kat samca mbind ga waaw mooy bu aji tuuti di nopp samca saat la wala fii saat la de waaw waaw waaw ñu lool aji aji tuuti di nopp ji la yàq saat la waaw waaw jiddan ko ji ummin ak borom yaay wax ci di ko dinga àll comme teewal batraha aji dagg ci geen gàtt aji ngerte wa bak ma aji luub bu meen wa baxraa aji xeen jigéen ñi wa yàgg ci barayin ak aji wow ci yanaat wa mes ko xati usin ak boo ñu xar ci nopp wa mag suurati sinin ak u damm bëñam ñu damm bëñam dem boo xam ne li xëy na isxaarin du moon pour foq su war a foq nag bañ bi dem wala ñu doon ko foqal mu dem waaw ay fekkee ne dafa accident accident la def tam waaw foofu bërin wala mu màggat tool wa zaahibatin wa zaahibati sulusi zarabin ak aji dem ji sulusi genn gi suñu seetee genn gi daal ñetti kër ñi daal benn ñaar ñoo ci def benn bi dem na waaye laa ëpp ni di tàggee nopp de sulut bi rek yaa ngi commencé mu ngi commencé dagana rende tabaski min zabxi limaam yi ci waxtu rende ci limaam fekkee ne imaam bi rende na xaram nga jullit ñi nga xam ne kooku mooy seen limaam yéen ñu soog a rende ba fa lay tàmbalee di aaxir saalifi ba ca mujj ñetteelu bis bi xam ne fekkee ne tey jii amuloo xar bu ci ëllëg saa boo amee xar ren ko ci gannaaw ëllëg saa noonu ñu waal yàlla mu ne xuwa moom imaam boobu ñuy wax ne gannaaw bu rendee la rend ci soog a dagan ba ca mujj bi ñetteelu fan yi al abbasi yu mooy ko jub abbasi bi ñu ci kon ñu bind ci xalif bi bind bi yow al afro abbasi la woon maanaam ndax mooy xalifa bi aw wala moom kay imaamu salaati yi limaan ji jiitu julli gi lañu wax ñu xawlan am nañ ci ñoo wax wala yuraa deful sàmmoonteeg xadruhu demam fi xayri lawali ci lu dul bis bu njëkk ba rek nag déedéet léegi de imam bu rek ci fii nu ne ñoom jul rek lañ ko mën ci saa yi bokk ci tax nga muy nag kenn du sàmmoonteeg kem jamono boobu ci lu dul bu njëkk bi rek xaw moom fekkoon ne Abbas bi ba la mu ñu dëkk ci réew yi sore xam naa dañuy xam jamono ba ndax te booba téléphone amul dégg nga bu dee ci yeneen bi su fekkee ne da nga amul xar wala nga tukki woon bay soog a ñëw fekk démb la nit ñi reyoon seen xar tey jii soo xëyee di ren di doone naa seet ba waxtu wa imaan di waroon a rey ba mu paase comme rey na ba pare rek yow boo xëyee bu jënd buy fenk see boo rey lu baax mu ne wa aada baa moot na ci def ci mastaadu xufu aji jiitu imaan nga ne ko faw mu ne ah illal mu taxaree ndaay aji nattale yoo xam ne dafa doon nattale aqraba imaam yi gën jaa jege imaam yi imaam ji ko gën a jege daa imaam yi nga xam ne ñooy jiite julli yi mu nattale waxtu mu war a rendi rendi yàlla dogal ñu fees moom kat moo njëkk a rendi imaam yi wala ñoo rendoo te moom kon du ko wàññi dara bu ñëwee la ci ba tey mu nekk an lam yubris ha naka bu imaam bi génnewul xaram pour nit ñi gis ko bi muy rey ñu xam ne rey nañu mën a rey imaam bi daal génnewul xaram moom la ñuy nattalee rek watawaanaa te mu yi nga xamante ne moom imaam bi laa ausrin ci li jur ngaan kon ñu nattale qadrahu kam la nga xam ne ci waroon a ren bi biir boo xam ne ci la imaam wala ren bi bu ko defee bu fekkee imaam ren bi woon ne ñoom mu ne wubbi fii ah bu imaam ren diwul moo moo ngo comme mooy bu génnewul xaram rek ren di buñ mattalee wax fi mu waroon a ren rek wala dañoo xam ne imaam du ren ñoo xam ne amul xar ñëw ren di ko amul xar yaa kenn mënu ko kenn mënu ko xaar doo muy am xar xanaa mu ne bi ñu fekkee ne kii la nag offre bi maanaam dafa am ngànt nag on préféra def na mu ne di kooku zawal yi zawal kon nga xam ne imaam bu fekkee ne xam nañu dana am xar balay zawal te mu di daal imaam bi dana am xar wala xaram dañ ko yónnee mu ngi jógee Corse wala yooyu wala Jamin te dana accès bu lay kii moo leen di fekkee dégg nga mu ne wan na xaaru bëccëg sartu sart la ci rendi xar pour mu doy ci Tabaski loolu di ba soppee fat na ibraasu lan ibraasu haa ak génneem maanaam lu ñu sopp la rek ci imaan bi zalik lil imaan wa xayrihi yukrahu adamu wal imaan sopp nañ ko imaam moom daanaka moom sofel la boo xam ne daal ñàkk muqaabalam mooy ci leen bu dee musalli bi rek nga xam ne dafay ko def rek moom mën na bañ a génne xaram du am ko def du nekk lu ñu sit waaye sopp nañu mu génne ko rey ko ñuy gis daal mu ne war na xaaru bëccëg ci sartum sart la ci konu ba soppee fat na ibrasuha génne xam tabaski bi wa sopp ba tey jëy yi dun aji rafet ñu ma waxoon mu am daraja wa saalimu aji mucc ci bépp ayib waxee xarxaa ak boo xam ne itam du mu aji dox wala aji xottiku ba tey ci noppam xanaa kooku tey dugal am la waxoon na mënoon na ko bañ a indiwaat de wasaqaa ba tey du loolu la ngeen bindee maanaam ak lu dul aji xar ci nopp muqabalatin ak boo xam ne du mu aji du fële ba mu xaabale suñu de tur ngeen defee ah bi mu xaabale tin daal moo yenn di ba xayru mu xaabale tin ak lu mën a doon daal waaw waaw kañ mu xaabale tin waaw ko sa xaa ala jënde xar xaa mooy que moom mu ngi fa mu am bokk xabar ci kanam seetu muqaabalatuhum daabaratun wa saminun wa dakarun wa aqranu wa abyadu wa faarun waaw waaw lii hey ay bu muqaabalatun de muqaabalatun moom la war a def moom muqaabalatun la مقابلة من ونضف غير مقابلة بالضم الميم م- وفتح الموحدة مقابلة التي قطع من وجهها من جهة اسمها وترك معلقا أي الله أبو حمد ولا أبو أبي بكر وابن حمد dañoo fàtt nag bi ci wet ci féete kanam bàyyi ko wa mu daa bëratin kooku nag wa mu daa bëratin de wa mu daa bëratin ba tey de moo moo muqaabala waaw moom la suñu lu ci xotee ni ñu xam ci haa bi yow mu daa bëratin bi def seeti gannaaw bi seeti kanam wasalin kañ wasalin kañ wasalin waaw sopp nañu waaw fii moom voilà fii wa sopp nañu saminun aji duuf xam ne duuf daal إذا الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية رقم إن من الصراط المستقيم ده في الإسلام بالنسبة موي ووتا يهود حديث بابو بأن نيو بابو يبو كنا في أمر بكو دين buñ ko tegee ñu continuer taxaw dañ ko ba mu paree ñu toog ñaanal ko ci jëm yan yow ci yowoon ci wax yoon xam ci yéen a ngi def mun daawoon def kon ma daan indi ñëw dañuy taxaw ba ñu denc ko yow ko noonu ko ñaan yoon bi def laa sax ne wóotu leen ñu naan yoon bi indee tey ñëw buñ ko tegee rek nañu ak ko dañ ñaanal ko ci ko dañu taxaw tey ñu ngi fi téere boobu yokk laa sax mu sax ma xaaral ko tax tam ci am ko ñu koy def naa kii loolu moo tax mu ne léeg-léeg sax ñu def ci nag taamil yoo xam ne du du baax la comme noonu kooku am ci jàng alquran waxtu jant bi bëgg a sool ndax ne ci la juif yi di def seen i jàng waaye ulama bi yëpp dañoo dal ci koom dañoo dal ci koom ne ko li nga wax dégguñu ko fenn kii itam xar mu juif ndax yawat yi dañ daawoon duufal seen xar tax moom itam pour moom mu daal di koy ñàkk ci ibnu Sa'ban bëriwul ñu ci ànd moom mu ni de puukare moom aram na moom mutlaqan bu ko yahud yi defee buñ ko defu yëpp waaw dagam boobu sax wax ne dagan na moom moo ko si wakare wakare xaxu maanaam si déel am na ñaari si déel ci biir bi nga xam ne dañ ko dugg ci dugg ci sharia xam ne da nga koo àtte pour ñeneen ñi wala li nga xam ne yow si bopp yow yaa ko fi comme ni imam Malik si biir taqbilul yadi ñoom xam ne moom ci bopp moo ko si ndax bañ rëy ak gis sa bopp loolu moo waral moom ci boppam pour tawaasoo moom sibal ko boppam waaye waxul ne sharia itam ne ko ndax même ci njëriñ mëccëxi ji rek njëriñ yëpp wuti nañ cee moom ak yeneen njëriñ yi kon d'accord nañ waaye moom dafa ko ci moom ci boppam waaw loolu ci Ahmed Tidiane itam moom itam loolu même chose waaye nag moom maasale wu ko woon yi saa dana ko nangu yi saa dana ko bañ dafay amit ñu ngi ko daawoon nangul am ñu ngi ko daawoon bañ nga xam ne kon ci sidna ibnu Saaban moom ci boppam xëy na moo si loolu ndax dañu ñëw gis yi ni yawat yi ba dakarun ak bu góor xar mu góor sopp nañ ko wa aqranu ak aji lëkkale aqrana am na ci doomu aadama yi am na ci mooy ñaari ci lañu aji aji aqran bi mooy jóge ci xarnu rek maanaam béjjën bu rëy li ma waxee woon borom béjjën bu rëy dégg nga wa yaqa'u al-qisaasu bayna jamma wa bayna qarnaa li ajlin samna qarnaa mooy muannasu aqran wala fa'laan wala fa'laan est-ce que aqran mën nañ cee tëj afalu tasdaka jon naxwal dégg nga wa aqran ak aji déjjënu wa abyadu ak aji weex ñu ñu waxoon sànq xar mu weex mi moo gën a rafet ñu ñuul ñi kii ko def ci am nañu ko si waaye si biir itam amul solo fekk na daal bu weexee moo ñu gënal daal bu faxlun te muy kuuy te yëpp comme ni ma waxoon sànq rek in lam yakun lim nekkul alxafiyu bu nu tàpp bi asmana gi gën a duuf xuus bi boobaa nag daf xuus wa baanin te muy xaritam bu ñu amul xarit ma maazun day xam naa boo demee wala boo demee rafetul rek man buñ ko tey foofu de am nañ fi ñu ko teg alors mën nañoo tànn ne xam nga xam gënal waaye mënuñu ne bëgguñu xar mu ñuul bu ñu ko waxee xar bëgguñu xar mu ñuul moom seen seen lañ ko teg seen bànne fekkee ne nag dañu ne moo boo yaxanu gënal moom mën nañu lislaam ba am ñu beneen waaw poisson rek ok ok ba léegi daal nañ ko léegi mu ne tax ngeen bi ñu ko waxoon loolu borom xar wi borom xar wi bëggoon na rey xar ba bañ a jëndaat donc jaar na yoon yi waaye yoon yi mu jaare de bokkule bañ ko bëggee est-ce que su dee woon daañu ko lekk su dee woon noonu daañu ko lekk sox bi danga ko gis su dee woon ci noonu est-ce que dagan na ndax lan bé buñ ko rendee la buñ ko rendee waaw xaala bu mu doon rek buñ ko rendee dagan na suñ ko bàyyee mu dee rek suñ ko bàyyee mu dee rek kon buñ ko ree it du dagan benn dé alquran nu mu ko waxee حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير واللحم الخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على الميت boobaa kay moom bu boobaa mu taxatul ndax dafa ñedd moom moom bu kon bu day bu weer woon ci yooyu itam dafa moom moom foofu moom dañ ko lekk fekkee nit bi àgg na ci ndax kii diggante boo xam ne rey mu dee rey mu dee loolu wala wax rey mu dee rey mu dee dama am si dara ah kooku day mu mu nasiixa bi lay jëlee bi lay jëlee ah kon kon mu traduire sa ngoog mu traduire léegi boo bu fekkente ne ku ko bàyyi mu xëy na mu dund waaw waaye bu fekkee wóor na ne ku ko bàyyi day dee rek nga dabaatal ko moom gaawal ba dee nit ñi dañ koy dañuy lekk ñoom seen ñoom mu ne wa baax nun ak xar topp nañ ko ci tabaski bi soo summa fekkee ne amuloo xar nag ma azun day moo fi la xam nag mbir moom lu bàyyi mu ni fekkee ne béy la moo xam tàppang la wala beneen bu mu ci doon beneen xar mi itam de summa topp boo xamee ne amuñu ko masalan amunu xar mu fooy amunu bu tàppaanga amunu bu jigéen ñu jël bëy summa topp boo xamee ne bëy moom itam amun am amunu ko ni ñu ko waxee moom itam noonu lay toftaloo gële ci nag mu nag suma xal yàlla damel ndax yeneen bi danañ ko baqal mu ndax kon bu bëywee naga ci daal di topp ci tabaski nga xam ne kon gëlee may soog a ñëw te waxuwa loolu kat wax jooju allah xaru mooy gën a feeñ wala moom kay bu nu amul béy iddilum gëlee ma ci topp ba ni naan gëleem soog a indi béy soog a ah béy waaw bu nu amul nag ci wax ci ñaare wax ñaareel dafa ne ndax bu nu amul xar ndax béyee gën wala gëlee te kon bu ci ñëw ba noppi gannaawam la borom bu ñu ko amul la borom bu ci def bu soog a ñëw borom bu soog a ñëw muy xilaaf ñoom nga mu ne waa topp nañu ba tey kar ko xalqun bàyyi wat topp nañ ko dégg nga xuuf ko waxala mi ak leel leel leel leel leel yu rëy yi li mu dex xiñ ñeel ak yi tabaski dégg nga ñu sopp nañ sopp nañ mu bañ koo def jàpp ni maanaam bu dee pour setal ko yooyu rek defe naa dana ko wax dégg nga waxal waaw kii tabaski lu ñu def seen ki nga xam ne mooy war a tabaski ki nga xam ne moo wut xaram war ko rey pour tabaski dégg nga assuré bi nga xam ne ñu ngi koy jamono bi ñu ngi wax léegi bés bi fukki fan biir xëy jëm lañuy ren bi xar yooyu def mu ne wa topp nañu ba tey ba iyatum tabaski ñu ñu jiitu ala sadaqati ci kaw sarax maanaam boo amee fukki junni mën ci jënd xar li ci yàq mën koo saraxee itam ci def jëleen jiital su nekk mu akkat yi sax su nekk li ko may farata ay seen bi ci ci def naa ko dara ci waaw sa waaw dégg nga muy wa ëppin ak goreel ba tey te def ci leen ci jiital moo ba tey sopp ni mu nga dem ci say dëppaa ak leen jiw bi ak loxo ñu ràññee loolu ne xar bu ñëwee dafa fekk si ne rëy na ndam fekkee loolu la moom faat na bu dee fekkee ne dafa si ne rek mu wér rey xar daal dem jënd xar war koo rey bu dee mu jëndaat bi waaw mu ayoo mu waat ko yàlla mooy mu ayoo bu dee wàcc mu ne wajamu ak lii mooy dagal ñu bëri boo dee lekk ku tamit ci wa sadaqatu ak saraxe ci wa etaawun ak maye ci ilaa xat yi néew ñu joxe bu joxe lu tàngam wala bu bu joxe lu gën a neex nangam wala bu maye lu gën nii wala bu saraxe nangam ma yaxee ilaa xat mu ni wala yow bis ba ëllëg wala bu dee aji jëkk yooyu nag moom dëgg dëgg waat nañ cee wax ñu bàyyi ko ay tànk ci njëkkee la xaw maa yi kenn xamul yooyu ah waaye dëgg ñoom daal di nga sawaay moom bu ñu leen toppee lépp la ñuy walbati def ko seen aaday bopp waaw waaw ko waaw waaw bu see ñu di ko def de daara lañ ci mënul li ci gën a bon nag mooy kii yi ñuy joxe suñ jox téeméer nga joxe junni suñ jox mille franc nga joxe ci mille franc riba la daañu ko delloo bala ñuy jóg trap delloo ko de ndax ak lu am waaj nag ba rajo si dina sin la daan ci bu doon lebi wala muy sàcc fu mu mën a dugg dina ko ut di jox waaw ndax da ngay gis ku leble woon ñu def la ko nga gis tey nga war koo def yooyu itam sonn ci bay bu dee te ñoo ko indi seen bopp de coono yàlla tegu luñ ko ñu teg ko seen bopp sëriñ julli su déedéet bu dee yéefar du dagan mën nga nag nga jënd sa xar yéene koo rey ngir tabaski nga jënd beneen xar sa ay dëkkandoo yéefar wala yooyu nga may leen mais xar mi ngay tabaski moom doo liñ ci may ci fees it doo ko ci fay doo ko fayee der bi wala fayee ko ci yàpp bi yooyu da ngay làmb ay fayee ko moom xam ne dara ci jóg lu dul loolu lekk sax xanaa nga rey fa beneen xar de ci nga may ko ko de waaye bu mu dugg ci ci bi de bu mu dugg ci fay bi de kooku itam sib dañ ko bu fekkoon ne ñoom seeni ñam ñam yi moom bu fekkente ne ahlu kitaab la seen ñam ak seenu rende seen lépp dagan na seen bu fekkeen nag majus la comme ñu naan ceddo jolof ñu ne séeréer ñi nga xam daal ñëpp ci benn diine ci ay addiyaanu suma yi ñoom bu dee lu amul rendi mën nañ ko lekk bu amee rendi bu amee nag yàpp duñ ko lekk wala ganaar bu yàpp yàpp daal ganaar yàpp ngeen di lekk ba jaaxal araamul de ndax bu fekkoon ne xëy na wuñu dara moom bu la buñ la invité dara ne wuñu bi day xew moom mooy problème bi waaw ñoom ñëpp ñi nga xam ne amuñu ñëpp ñu amuñu kitaab ñoom ñoom dëgg duñ la joxee ñam boo xam ne am na yàpp boo doo ko def fekkee nag catholique yi la wala yoree bi moom suñu ko la xam nga lislaam kitaab naka jëkk comme ku lan far bar ahli ku weddi benn yeneen ci yeneen ci rek yéefar nga ku weddi lenn ci li nga xam ne alquran indi na ko wala xadis bi yéen wala ijma yéefar nga am na yoo xam ne day tekkale ridda ba nga xam ne mën nañ ci at dëgg àtte la àtte di génn ci lislaam bu ko fay yàlla sànni ko ci sobee wala ñu ne noonu la mais su fekkente ne nag dafa yéefar yoo xam ne dañoo am nekk ci diine boo xam ne nekkoon na diine bu baax ba beneen yore diine léegi boobu diine bàyyi leen ko indil leen beneen ñu bañ parce que ñoo ëpp daraja ñu ñëpp benn diine bu ci dugg asamaan ndax sax ñoom nangu nañu ne am yàlla am na nangu nañu ne ëllëg itam am na nangu nañu nit ñi daañu dee nangu nañu yool ak mbugal loolu la ñuy ëppee daraja ñi nga xam ne ñooy majjee fii maanaam daal ci la ñu animisté ñoom it ñooñu ñoom ñooy ñu féete gannaaw ci dee sax bu leen rey seen dee mu gën a woyof day c'est-à-dire ñoom nag ñu ñu considéré ndax ñu doon xam nga ren bi moom jublu jubale tànk bi am na ci nga xam ne dañ ko fekk rek bismillahi bi dañ ko fekkee ne daf ko fàtte di koy daañu ko lekk waaye bu ko teyee bàyyi ko duñ ko lekk kon bu fekkente ne li alquran li ci nit lekk wala ci wama tudde ala ji alam alam muslim mooy comme ñu lépp li ñuy rey nga xam ne rab yi dañ koy rende ñu faj ci ci tawat yooyu araam na lekk mu mel ne ak demul mas foo bu ñu rendee deret ba ñu naan faw sobe la comme la tax boo jullee da nga baabu yooyu moom bu bu yooyu wéyee nga xam ne ñoom dañoo rey suuf rey bopp ñu ñuy reyee ñoom daan ko lekk daan ko lekk bu fekkee ne nag ci amul benn diine bu yonente indi la nag bu reyee duñ ko lekk ci bu dee jullit xalal ak jigéen bu fekkee ne xamal nañ leen ni ñuy rendee dana dagan lekk seeni rendi waaye imam Malik dafay tuddee Omar si jëbsaha kadalik wa fiihima karahatun li Malik imam Malik dafay tudd na xale bu rendi ak lu mu xam-xam attee rendi bu rendi moom nag moom jigéen mu rendi lu mu lu ñu ko jàngal-jàngal attee rendi ba mu xam kooku alaykum salaam bu rendee te imam Malik waaye commencé rek waaw ñu nag wala yow mu ak bis bi ëllëg wala bis ba nga xam ne moo jëkk moo moo gën ci dëkk bi dafa kenn rend ngay seet te imam ci ma am rendee li def ci bis bi def ci def ci def ci bi waaye boo ko def ci bis bi waaye ci ba ba def ci bi waa ko boo amee xam rek am nga rend وفي الأفضلية أول الثالثة نسي جنب نيال دين بس نيال با على آخر الثاني في المجد بس نيال با ndax moo ko gën wala gën ko dara du am na ci gën gën ñu ne fekk nañ koy amuloo xar ba jant so su bés nga xëy amuloo xar ba tàkk tàkk nga am xar ndax nga rey ko tey moo gën nga ne suba ba jant bi cinq waxtu bi dagal na ci la nga rey ko ñu ne waaw am ñu ne ah suba bi daal waaw ñu suba bi daal moo gën fan nit ba suba moo gën ñu ne déedéet bis bi njëkk bi daal gannaaw moo jiitu moo bisu ñaareel bi daal moo gën bisu ñetteel bi ndax moo ko jiitu am ñu am ñoom waa kër googu waaw
fa bi defal mel ni ubbi ko bismillah rahmaan rahim ubbi ko alhamdulilah daanaka war nañ moom jàpp ba tànn parce que ñàkk xam rek loolu laa ko gis yoon bi waaw wuute bi dafa dafa yaatu dafa bari am na ñoo xam ne nañu ci cib nañu dafa ko di bu baax ñu ne ala saan bi prédit ba dëpp yi waaw prédit mu ne wa dëpp wala din ba tey mooy daanaka li mu waxoon topp nañu rendi xalel xaraja boo xam ne génn na xam lay dëpp ci lañ dëpp ñu rendi waaw bu fekkente ne dafa génn ba noppi dañ koy rend bu fekkee ne bu ñu ci biir bi bu ñu ko rendee te fekk mat na te fekk mat na rend bi ñu rend yaay bi mooy li ñu rend fekkee mat na sax karaw fekkee ne génn na waaye nit ñi yaakaar na ñu bari ñu ko def tey dañoo ah loolu tax ñu am ko xam nga ñoom dañuy dañuy supposé rek ah loolu la ñuy supposé saa boo xam ne du am mukk xëy na gerte loolu la ñuy gerte ah ba ah ba ñoom du amul benn yu kenn lu xas ba am daal dañ ciy yaram ko dañ ci kenn dañ ko gis laaj ko dañ ko gis dañuy laaj su ma ko dégg ci moom dara. gannaaw gi nag la ulama yi ñu jàngee ahadis yi ak atte yi nga xam ne moom la kilifa yooyu daawoon atte ñu ci posé na ñoom bu nangam amoon bu nangam amoon bu nangam amoon seet na li nga xam ne moom lañ ci wax rek ngir mën a tëral tëral am ma tëpp te lépp lu am rek ñu xam ak jàng bu tax sax mu mag ndax xew xew moom di jeex ba yomal xeyam waaye di tee ñu mën koo atte ci ci sëriñ mu ne wa dëpp wala bi ak ren bi doom xaraj yoo xam ne génn na xab la dëpp ñu ren bi mu ne wa baadahu waaw gis nga liñ doon wax ko fekkee dafa génn gannaaw bi ñu rendee yaay bi moom doom bi ñu xaaj la ci yaay bi ñu kuriha ah bu dee kan waaw soxna ba leen di koy ñaare ba leen koy xeex dégg nga wa kuriha wala wa kariha li ñu wa kuriha ci biir fas na jëf ji ci ukira ñu xóot leenam qablahu ci la jëf ren bi ndax day wàññi dara ji kii day wàññi xëy na yàlla xam nga xam ne ci leen bi ci nekkoon ñu koy jaay ci loolu lam ñun ñu ni lëm taxul ñu takk ngir rendi fekkente ne dafa saxoon lii dafa saxoon nag di jiitu ñu waxee ko wala mu jënd ko ngir fekk yéen a xoofu itam nga xam ne kon police bi yéene waale yi ci woon rey ko mu am mu leer booba amatul ci leen waaw ba booba ba booba ñu kon ci wala إليه تجنبون حين حقها وقته في الجنة وبيعه نتمنى جاء سجنكم وسجن لبن أك ومن سجنكم نان صوم لا بنقول جنة سجن بالسلسل مو من الله ورسول الله ويطعم كافرين هنا بن كفر الله ngor ak jox ci yëfar mu lekk من وال جام يلا عندك كل الدوب هنا كل تعيسة بدي يوم يوم له ممكن كله نجح خلي ولا ولا أول من قال ولو في عيال من رحمة الله في جبهة هو والتغالي لي دفن في الممكن xar moo xam ne cent mille francs dañ ko dañ koy jënd photo ko fekkal ko ay téere def ko yëpp saxaali sa noonu seeralante loolu itam li ay téere ñu bëri ko ñëpp gis ko foto ko def sore fi'luha ak jëf rey xar maanaam am maytin bu dee ba noppi nga ko yéen nga reyal xar yëpp ko ñëw nga waaye itam de tudd nañ ko te atiratin mu ne nag gàttu atira dañ amoon ñaari xar yi dañ amoon ànde ko rey di ko jot gis seeni dañ ko daan def ba suñu xarum ñu daan jaamu ñu dem ba mu ko mu nekk aada yoo xam ne dañ koy def rek dañ ko jaamu xarum ñu wa ibdaaluha parce que wattam di duur di ko yëg xam nga daal dañ ko jënd ba def ni ñu ñëw ci daal bi ci temps am na beneen boo xam ne mën naa ci jënd beneen xar ko fii wa in lixtiyaat doonte mbir yow ah xilaaf la de xilaaf yi ñu ñu def xilaaf yi doonte dañoo jaxasoo yi tamit ñu nga rey ko ñu dem ci ko defee fekkee ne xar ne nit ñoo ko woon teg ko pour nga teg ko ñëwee ko def tey ñu dañ koo am rek te la suñu jëlee nga xam ne sa doole ak bés boobu nga jaay ko suñu bés doole ko doole ko ko bañ a waaye fekkee ne nga jënd xar ñu ngi ko def tey wala nga yaram ci ngi ko def tey léegi nag nga bëggee dellu gannaaw jaayaat ko jëlee def nañu daal ko fekk ak ko bu ko gën a yëg waaye kon de bu ci dara jënd tabaski de boo ko jaayee it xaalis de ci tabaski rek ñu ci def dégg nga bu ñu def ci laaj bi fekkee ne ban bu ko jaxasoo sax ak yeneen xam nañ ko ci suñu def ci ren bi jaawale ko bu jaay dara naa ko ne aywa aywa bi sab ak wat li nga xam ne moom moo wat yow yaa moom ak وجاء وحده من وجاز لمالك ضحية جاز أكثر عوض الحاء من غير الانتظار والنقص في اختلاف الضحية الجاهلية عند سنة ضحية رجل ليس مسلما فقد بعده تبناهم بين قرين يتمسكون في الأمر والسحر solo mu ne ko nangam yàlla jëm jënd xam xam ko boo ci moom kon xam moom moom it xamul mu ne xarala xëy na wax dëgg laa wa sax xaar yore na imaamatin watal ku la rendil la ci xibaar léegi daal wuutu ma taxawal naa la léegi mun na nga yaaree ni ndax yaa ko wuutal léegi yaa ko faram di leen jox ah jàpp naa ko lekk dañ ko topp rek ah kii yëpp ah yooyu de dañ koy def rek waaye du leen du leen wan yéen yi rëdd yi nga xam ak kii yi borom bi taala wax maanaam nga rendi sa bopp fekkee ci itam mënuloo rend nga bokk nga dimbali ci rend bi nga jàpp jàpp maanaam jàpp ci xar mi téye ci ba ci ñi nga xam ne xam nga ay ñu ko koy téye ba ñu jeex jeex wala ci ko yooyu yooyu rek wax ni nga ànd ci soxla dara waaye ñii ci ñi dañ ko def soxla bu lan du leen du moom yëpp day rend day rend dégg nga suñ aslama suñ yéen dañ muy wax ah yéen dañ mooy xam nga nekk na ndax kon bu ma dagan wala dagan mu nekk waaye daal ñu xale sax naa ñu ñàkk a doy rek ñu xale sax fekkente ne dafa góor ñoom ñi nga xam ne ak yu rend la ñu rend xar bu jàmbur jàpp ne kii mooy xar moom mooy xar moom moom moo ko moom dañu wax ko foofu dafa bokk ci xar bi wala ci biir mbéy lu wax ni benn ci ñoom ñaar bu mu ne ah dafay fas na xel bay jaay yàpp xaru ci bët bay jaay dara mooy li nga waxoon ci lay fay def tax boo ko ci fay dañuy ñu génn xaay fay doo ko ci mbay lay jox ko bay jaay dara saa ci boo ko jaay bopp ci dafay jaay ñun وإن ذبح لامرئ قبل الإيمان فإن يحرم الإيمان بجيد ولو الحيض غير أو تعينت أو تعيبت ولا أو تعينت أو تعيبت ولا محيطنا بجنبه حالة القتل سواء صورة الليل أو قبله ولد بجيد أو ذبح ولا مرئ لما يبن ذات الأيد جهلا تجريره أو لون الأيد léegi nag lu lu lu lu xabar bi mu ñaar foo mu ñaar waaw foo mu ñaar wal ijaaratu aw tabax ma ngi dem jeex na jeex foo mu ne alal ومن البدن آه بعد ذكر قدركم إن الجاهل ومن الصدقة إلا الصدقة ومن أكل المال ومن البدن ولي وسيده أو شيء من عمل لحم الأوجد من الكسرى وغيرها كودة ولذا لم يحدث هذه أن لا يصبح من الصدقة على شيء من وإنه أيضا لا أشيء من الجزاء معجب الله كما قال في ذلك الرسول وإن لم تجد فيه كمن ذبح يوم السابع يوم الواو جيد dafa tere nga jaay ci dara donte sa nga ko ren woon di gis di loolu wala mu ay ba nga xam ne bu doon léegi doo ko ren waruloo ko wane ay waxtu yi nga koy bëgg a rey mu dal di ay wala ñu ko gis mu ay wala mu ren di ko fekk ko fekk ba ma ci tëbës ci ko fekk moom dañ koy rendi xamu ko woon te yëpp di tax na ma koy jaay wala di jaara wal badalu wala waxte tere nañ ko yekki ci dara di jox la yàpp lii béy da jox la ci yàpp xar mi la mu jox ci daal mu tàkk seen ale yi daye koo xam da nga koy tarxee bu fa ci xat bu fekkee ne yooyu waxoon am na dañ koy julli watu waaye ko buñ la delloo buñ ko firee ba mu delloo la nga la nga joxe woon watu sa joxe tarxeetu nga buñ ko wëcc te la nga ko watte woon ci kaw ba ñu watte ko in la fi yesa walla lem méngoowu xayrul keneen bilaa ismin cin bi ndigal nga xam ne kon moom léegi def deful dara moom waaye bi dafa yeew xam daal ah benn waaye rek la ñu jóge fee daal di jaay wala mu watte te amul benn ndigal yow sa yoon ñëw waaw waaw xam ne digal wattu fa la de wattarte li nga wala soppi dégg nga li sabbi waaw maanaam ma am nag bilaa ismin ci ñu digal waxtaan am nag coppam coppandiku maanaam dafa jaay tey jëfe jëriñoo ko jëfeñ ko ko ay ci def dégg nga fii ma ca la nga xam ne laa yel jamuhu di ko war moom ci moom xar wi muy topp ko ci loo xam ne ñu koy yëf di loo xam ne yow yow la waroon nga jënd ko boo ko defee ci yoon bi ne waaye bu fekkee ne dafa dem jaay xar bi ba noppi ci fekk yow dépense nga amul woon mu dem jënd ko pour nga xam ne lu la war ci ma la jëm moom nag bu ñu ko misaale mu nekk ah si ay bi nekk tay ayib ayibam ñu fi jàmbur ñu seet li wàññi ci xëy na bi ñu war laa téye ne la fay ko xam nga loolu lu la war la loolu ñu ñu ñu ko misaale woon mu ne kooku du tee mu dagan kooku laayam na du tere alisa adoy waaye damaa tëj bu nekk dana war waaw bu dee ba tey bu defee tabdil wala lépp loo xam ne nii dafa koy soxla ku ta waa ji tënk ko ko ci li nga xam ne woon dana doon na tax di maîtrise bu fekkee ne dafa niver léegi sunna la woon waaye damaa fi mu ne naka danaa war ci nekk ci nisar dégg nga moom tamit ci juuban léegi du doon pour nasar waaye mu juuban dina fi ci nisar wa dëkk ànd ak ren di ko waaye dina bari la tëjji ci loxo yëpp ci laa di dëkk وهو المشهور في المسجد وهذا باعتبار المسجد يقرب العيب تحته قاله فإذا هذا ثم أصابها عيب قبل تشبيهها فلا تجده قال ابن أبي سلام لا لأن تعين المكلف والتزامه لا يثبت عنه ما طلب الشارع ما طلب الشارع الذي له يوم القيامة. dégg nga dana war ci liñ ko ànd ak reen bi kon ñu fekk ko ba noppi reen bi ko ci place bi dana war ci nisar gi ñu ko war gi mu gi mu nisar xam nga boobu bu dul woon tabaski gisal boobu dana ko war dégg nga ba noppi mu reen bi nisar ko ba noppi reen bi nisar kaa nisar ko ci boppam moom la def maanaam moo baax moo tàbbi daal صلاة الجدة إن تعينت إن تعينت من أين قبله وإنما الجنة والذكر صلاة الجدة إن تعينت قبله تعيبت قبله سكن لها أي كلمة جبران لي بطيب أو يجب بسكن قبل أن كان منظورة الأمر Thank you. bu fekkee ndax ñu ne bu ko miséré bu ko miséré yëpp bu fekkente ne dafa ay sëreendeegul moom ay yoo xam ne tax na mat di ko def ci du ko doy dëgg nga mu ne wasanaa dana jëf bihaa ci boobu nga xam ne dafa ay sëreendeeg ko maasaa bu ko soo soobee mu sarxe wala mu yàq wala mu yëngu ci ay mënul liggéey nekk xab sihaa naka noonu bu yéexee ren di ko def ci bi xataa faatu ba faat al waxtu lu ko soob la koy def léegi ñetti fan yëpp dañuy ko def lu nga tuddee ko def ci mënu koo fay ak ko def ci dafa am waxtu léegi lu ko soob lu ko soob rek la koy def ñu ne illa anna hada nga rek ci aati mun ki nga xam ne moo ko tey moom téye ko ba tamit ci passé moom ñu ne ko nag saxar mi la neex na ciy def léegi kooku am na bàkkaar te walil waarisi bu faatoo ñeel na ñu koy doon alkas ni ñu séddoo ko ndax moo ko moom te loolu ci bexat dégg nga doonte ren de toon na ko itam waaye nag laa bay on de caa jini jaay de daga ñu moom ba adafoo te gannaaw ba nga xamee ne ren nañ ko ba noppi ci day ñu ci bor jaay ko pour fay bor ndax ci kon muséroon moo def ko doon ko def ci gaañu na bi ñu ko def wala du doon soppee fas na dakk waa xibitin rend benn rend rek dégg nga sopp nañ ko ñu ne naa ne dakkar ko woon tam ci gën a doy maanaam ñu rend benn rek benn dakk في هذا الولادة jëngal yoor yoor la koy def ci saabi il wilaade ci ci juróom ñaareelu bis ba naxaaren ko dëkk xam ngeen li ñu wax ne bisu juróom ñaareel bi la ñuy ngirte bare bare bare ci juum ci juróom-ñaareel bi dañuy ngénte ñu wax ko ba noppi tey la lan tey la àllarba ñu àllarba alxames ajjuma samedi dimanche altine talaata di juróom-ñaareel àllarba bi di juróom-ñaareel dégg nga ko leen ko bëgg ah àllarba bi waaw sax xanaa ji bi ci suba teel na ca fa def ba léegi ko climat ndax bëccëg ndax bëccëg ci islam konte nañ ko ci bis ba faate woon te danaa nag guddi ji jiitu lañu boole ci bis bii ñëw xam nga suñu ne tey la àllarba buñ jant fay rek alxames bi gën a waaye bu bu ci ëllëg saa bu jant fay rek alxames jeex na bu jant fay rek alxames jeex na di gën a àjjuma parce que bëccëg danaan mën na dellu nekk ci bis bii du mën a nekk ndax bële mën na jeexal te ba jëm xooyoo guddi gi sax bokkul waaw guddi gi sax bokkul fan la fan la problème bi ne lu tax bis bi nga xam ne guddi boobu ci fa def sax ñu wàcc guddi ak wàcc guddi déet jant bi soo rek guddi gi waaw loolu moom ñëpp d'accord nañ ci waaye dama ne bisu juróom-ñaareel bi ñu wax waaw kan te di ko ngénte ci juróom-ñetteel bi daal di ñun ñu leen ko déggee ne moom kay l'islam moom calendrier bi ngeen ko jàpp guddi mooy guddi bi ñu jël fee rek di ko ëllëg ci guddi léegi weeru weeru bu ñu ko séenoo weeru koor bu feeñee rek noonu ci koor bu demee ba am fanweer wala ñu ko juróom-ñeent bu ñu ko séenoo séen ko rek weeru koor bi am noonu ci koor problème bi moom waaw kooku moom weer bi ci bopp mu nekk dañ ne waruñu ko nahaaran lil xaajale ko foofu dañu wane ne weer du seen bëccëg guddi la moom weer mu ñu ko juróom-ñaar yi dee am nga kooku du lislaam yaa ngi leen tubaab yi ñoo jàpp ci calendrier solaire kooku moom mënuñu la gis di jeex ci ñoom waaw mënuñu gis nga une minute rek dañ ne dañ jëm ëllëg tàmbali kooku la lislaam ñu jàmm calendrier bu neex la jàpp léegi problème bi moo di nii dañ ne la doom bi ci juddoo da nga xam ne bu ñu doon woor mën nañoo lekk rek xëdd passé wul rek loolu nga gis fan passé woon bu xëdd passé nag ci dee da jëm lu loolu lu ko waral te lislaam jàpp mu guddi mu mbokk bu ñu jëm lu tax nag duñ ko jënd ci bis boobu feeg xëdd bi maanaam feeg jëm ñu ko gis ba ko def juróom-ñaari fan ñu wax moo ci nii léegi ñu jàpp ñu heure bii ci juddoo seen soobu kon loolu dañu ko mën a toog waaw àllarba la fekk na ji jëm bi àllarba bi mu ne bi ñu koy jëm suba lay doon ñu yëg ko wax ñu jëm léegi tey la àllarba doom tuuti waxtu yi masala tey bu ñu demee ba waxtu yi ci talaata lay mat benn bés bu dem ba ba alxames lay mat benn bés ñu dem ba ajuma ci waxtu yii mu mat ñaar ñu dem ba samedi ci waxtu yii mat ñett ñu dem ba dimanche ci waxtu yii mat ñaan ñu dem ba altine ci waxtu yii mat juróom ñu dem ba talaata su ma tollu talaata talaata ci waxtu yii muy juróom benn àllarba di kaat ci waxtu yii mat juróom ñaar gannaaw nag bis bi ci lay mate ci waxtu yii toll lay mate dañoo wàññi vingt quatre heures parce que parce que mooy dem juróom-ñaareel bi duñ ko la jël waaye nag buñ gisee nag ci yomu saabi bi ñuy wax foofu la ñuy gérer nag bu ko juróom-ñaar lay doon moo tax loolu ñoom moom kay ñoom loola tax ñu ne ci yomu saabi bi juróom-ñaareel léegi moom duñ ko fóote ndax dañu naan rek moom du juddoo te xëdd passé wu rek day dellu te du bëgg yem woon bu xëdd passé nag lay soog a doon ci biir waaye bu ñu dikkee ba ci ay yomu saabee problème lay doon su yooyu am na ñoo doon waxtaan ne xaw ma ay ibaadu xaw ma am na ci ñoo xam ne gis si juróom ñaar ñu mel ne ni ñu ko jàppee ñoom moom la ñu tey jii ñu ngi leen see jëm ndax man muy juróom ñaareel dama ne la feeg xëdd yooyu rek day dellu ci bis bu ñu la ko feeg xëdd yooyu xëdd yooyu rek boo ko wàññee juróom-ñaareel bala mu ne ci saabi al wilaada bi juróom-ñaareelu bisu biir ba naxaaram ca bëccëg nag waaye duñ ne vingt-quatre heures yi def ci nit lay mat ndax ñu ngi ko jënd ci nit bi déedéet bis bi nga xam ne ci la vingt-quatre heures yi mate rek ci bis bi bis bi jant bi sant rek jeex na ci bis boobu lañ koy ren kenn du jënd bis bi wóor nga wàccee fat na dégg nga yow mu xaaj bu mu juddoo woon waaw te juróom ñaar lay doon seen suba sax ndem bi def na ko bis fekk bu fekkee ne fajar bi jiitu na ko ëllëg la jëm jiitu paase wàcce nañ ko waaye su fekkee jiitu na fajar bi rek mooy suy woor ba mu laa lekk rek day doon mooy lu koy wàccee sax mu xaaj jëm ci ci xam dañu ci def na ko ci xaj ko ko def ci ko wa tasaddaqu topp nañu sarxe di gën ci saar yi ci mandaxam karawam suñ ko watee teg fab balance bi teg karaw suñ ko watee ci palaatu bi daal di fab or wala xaalis wala ñu ci ko nekk ko teg ba mu tolloog moom suñ sax jaaza waaw karaw jaaza dagan na kësru ibaamiha damm yàqu gàtt bi ñu rey pour tudd duñ koy lekk dafa am ci ji ak dañ koy ko xaraamaloon mais damm yàqu bu weesu jot na amal waa jox ko wàññi matan bi ëpp la loolu nag ba tey mu ngi ñu ne ñu moom dañuy bàyyi sax ba mu paase bu tamit bu ngeen ñu ñëwee fekk amuñu xaalis ñu ne dañuy dañuy xamu ba tey xamuñu dara ñu woo adduna bépp di ñëw wala foofu ba tey fii nañu réex ko maanaam taqal ko bi demee ha ci dara ci gàtt bi ñu reyoon rek ci lay ko lii ko def tamit waxitaanoo